فزتي بزار في الأزانات سيدة لمسينات مريم فوق دمخينات إن الذي لم يدرك nu fayaakoo nu laaki xaat xayra rasuulanti xaat wa biki faat suusuti xaat walam yakun bi musuriki lam يخفاني من المؤمنين كونك بالمحسنين يوم خير المحسنين عظمة من سراكي يقود عيوني لمديك معا كيف لنخدوك فسي بيس للمرهيك كل تاخي المدرك وجاتوكي اليوم بما يديم لي خطا بما إلى تيوى إيسى بما من خير غاس سدركي أنت سولا لا تركي يقودني لمديك معك فلن خدهك فسبي بيس waaye loolu maa ngi ñaan ko ba nga xam ne la nga xam ne frère Ibrahima ñaanal ca màggatal bu kanam loolu damay dikk tuuti ndax xam naa temps bi gàtt na sëñ bi waaye il faut ma nekk mbir mi tuuti loo xam ne Cheikh Saliou Mbacke moo ko waxoon kii bi ànd ak président Macky Sall dañoo ànd ñëw sa sëñ Mbacke soxla loolu bi mu ñëwee sëñ Mbacke soxla loolu jël sëñ Nourou Mamadou Ndiaye boole ko moom la yow yóbbu leen ci sëñ Saliou sëñ Saliou ñaanal ko bi mu nekkee ci sëñ Saliou Mbacke sëñ Saliou ne ko lan ci lan lay yóbbu mu ne ko leen dénk li nga xam ne mooy seen wàllu pétrole bi mooy pétrole bi mu ne ko ah xam nga ne de mu ne mu ne ko foofee ci màkk màkk ak màkk fa nekkoon suñu maam Ibrahima ñaan fa lam fa ñaan ba nga xam ne tey mooy bañu pétrole xeeru gi boo ko gis ci àdduna bi mu nekk ci réew yi nga xam ne ñoo fi ëpp ay tool da nga jàpp ne lu moo leen suñu maam Ibrahima ñaanoon sëñ Tuubaa jaar na ko ci dëkk bi pétrole yi dana fi bëri gaz dana fi bëri te loolu maa ngi ñaan ëllëg lii am bu sottee say loxo kooku dina xam ne dina nekk ci sa laxaar ñëpp ñu ngi fi sëñ Mor Mbacke Bara Dolly mooy borom bis bi mooy mooy mooy bi waaw ah, kooku moom mooy mooy pare bis bi moo waral lii lépp parce que mën naa wax ni bi ma ko jàppee daf ma wax ni ma nan bàyyi ba yëf yi jàll ñu xool ban mois lañ koy jàpp ma jàpp ko le 14 juin fekk ma jóge woon ci journée culturelle Darmanko bi ma doon def sa Thiès c' était aussi 14 avril boobu temps yi 14 avril donc 14 plus 14 égale 28 <laughs> doy jaaxal non non 14 plus 14 égale 28 waaw ah, loolu li tax ma tàmm ko lu mu war a décoder ko la te naa ci kanam bu ñu ko joxee suñ kanam mu décoder ko waaye di nuyu Serigne Alla Sylla non Serigne xam naa ko bu baax sëriñ Alla nit la ku oyof ku baax ku jàppale le président Macky Sall comme ko sëñ Modou euh, di ko def ci nit ñi di leen jàppale nekkul ministre mbaa mu nekk député wala yu demee noonu déedéet ñaxta dafay liggéey di génne ñaqam di ko def ci doomu aadama loolu def na ko ay yoon yoon di jàppale ndaw yi ak jigéen ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ñu yor mbootaay ñëpp ñii xam na kon suñu àll ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm waaye ci ci ci biir loolu it sëriñ Fallou Amar mu sëñ Ibnu Amar sama mag la ko oyof def boobu ba léegi mu may woo bis bi ban heure la ak kañ la wax dëgg yàlla di ma ci nemmeeku moom it sant nañ ko ci teewaayam bi nga xamante ni egg di sant nag njabootu Serigne Aliou Amar gépp man a njabootu Serigne Aliou Amar damay jël ci tet bi yokk ko ci Serigne Bara Amar mu tasaare ma ko ak njaboot yi fi nekk yëpp kon ñu sant bu baax Serigne Bara sa teewaay yi di sant surtout Serigne Abdoulaye Mbacke yi nga xamante ni wax dëgg yàlla def na lu rëy ànd ak délégation bu mag moom it ñëw jàpp ci bis bi Maas Mbacke ñu lay sant bu baax a baax a baax a baax di la defal la màggal gi nga jëm si muy màggalu si Abdou yàlla dafa la nga dugg si ak jàmm genn si ak jàmm waaye di sant mbooleem ñi nga xamante ni ñoom ñoo teew ci biir euh, waa kër Alaaji Mboolu Faati ñëpp teew na waaye nag waa kër Mar Gumba tamit ñëw na def délégation ak waa kër Amar Maane Amar Amar Maane Amar mooy sama wàññi jigéen moom Mar Gumba ñoo ko mu waaye nag waa daal danoo def délégation bokk ci kër Mourou Paye ñoo ngi ñu def délégation soxna Paye ma mi nga xamante ni maral la ci bis bi mboolem xéewal yi nga xamante ni moo fi nekkoon ñu di ko kii tey kër lañ ko doon defaree ñu jël taxi ànd ak délégation lu bari ànd ak ay mbokkam ay xarit soxna Oumy Ndiaye ak ay doomam ak ñi nga xamante ni ñoom la dëkkal waa Ngayeen askanu Ngayeen ñoom ñëpp ñu ànd ñëw kon moom seen rafet rafet na seen i waaye nag soxna moom yi moom yi Diouf moom maa ko choisiral sama bopp sama jarbaat la sama xarit la ah soxna moom yi sama jarbaat la sama xarit la kon soxna moom yi ñu ngi lay sant bu baax di sant waa kër maam Ibrahima Ndior ci teewaayu Serigne Thiar une journée merci nag dafa am lu ko waral non une journée merci dafa am lu ko waral merci yow yaa wax ni ku deful ku deful dara doo ko dégg. dafa am ñii ma àndal ñu jàpp ci man liggéey ak ma ba sama journée culturelle bi réussir ma loolu doon tax tey ma woote une journée merci waaye lii jàpp leen ni yéen ñi fi teew ñëpp seen aajo lépp ay jàppale waaw ah, non du yi lépp ay jàppale loolu maa koy ñaan bu baax a baax a baax a baax ci barke Sëriñ Tuubaa di leen wax ni leen Eh, li bi wax sànq di sëñ Modou Mbacké Bara moom day sama xarit di di sama lépp ànd na lu ne def na lu ne moo tax ñu jël bis bi waaye bu ñu jëlee ci ñi nga xamante ni moom la ñuy fàttali rek ku ci mel ni sëriñ Moustapha Amar mu sëriñ Ibnu Amar kooku dafa am foo xamante ni dafa jaar muy sama mag waaw sëñ Moustapha Amar mu sëriñ Ibnu Amar waa këram ñëw nañ fi def fi délégation bu mag ci njiitalu sëriñ Xaadim Amar waaye soxna joor ñang sëriñ Aliou moo koy yoroon muy sama yaay maanaam keroog bi ma juddee bi nga xamante ci laa gane si àdduna muy le premier octobre ah ne koy si waat moom la ñu yeboo doon soxna joor ñang ci Thiès a ñu ngay fàttali waaw ah, di nuyu mboolee moom ñi nga xamante ñoom laa àndal ñëw euh, sëñ Mbacke Modou Ba Mbacke ñu ngi sant sa suñu àll si la sant nañ bu baax ndax lii bu oyof rek moo koy def boobu ba léegi yaa may woo kañ la bis bi suñ la woowee nga décroché su ma la message yi nga répondre nga répondre loolu ak yëg rek la kon suñu àll si la ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di sant nag média bi xam naa ñu ngi xaar lu tiitalee ak ñu maaye waaye ñu ngi leen di sant ñu ngi leen gërëm di leen xamal ni leen bis bi di bisu journée merci jàpp leen ni ñin ci fas ak ñi nga xamante ne ñoom lañ ci woo di leen ci rendre hommage ñëpp dañ leen ci fàttali mu rek waaye jàpp leen ne lii nga xamante ni moom ngeen indi li sëñ Modou Mbacké wax ci pétrole bi su la jëlee am na loo xamante ni wax na ca ah, am na xam na ca donc lu jël comme temps bi dafa nekk limité euh, restaurant la boo xamante ne wax dëgg yàlla ñoom it ci jàpp ci ndaxte par une heure de temps lan lay taxé attention ak une heure de temps lan lay taxé bu ñu ñëwee nag ñu plus ci lii lépp dolli ci lii lépp kon waa restaurant El ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ci temps bi nga xamante ni may nañu ko li waral loolu nag euh, ñu wootee thème bi muy solidarité ak modeste maanaam dimbalante na ni dimbalante waaw na ni jàppalante suñu bopp di dimbalante loolu waral ñun ñi ñëpp ku nekk xam na ni benn la na ni jàppalante di dimbalante ah loolu maanaam tey jii moo woote thème bi ci solidarité modeste nag mooy oyof waaye nag moom nit day wàcce borom te bu wàccee sa borom borom yéenam loolu moo xam naa di ngeen ne ñëw ma ma wane ma wane luy niroog ci sareet ba jàpp ni damay dugg ci sareet ma wàcc dugg ci oto Mbàkke loolu dafa lu muy firndeel wasalaamaaleykum